président de la République une invitation à l'amour du travail ouais. une invitation à la lutte contre la corruption, une invitation au respect des règles kooku da loo xamante ne sénégalais bu ko war a mën a dégg dafa war a dugg sa xol accepté parce que on comme ni ñuy wax dañuy xeex pour nit ñi dañuy xeex pour changement. Hmm. c'est pas simplement parce que Macky Sall dem na. Diomaye ak euh, Diomaye ak Sonko ñu ngi fi rek léegi y a des acquis. non le combat commence maintenant. wax na ko sànq l'amour du travail l'honnêteté ah l'intégrité morale et éthique dafa am solo comme ni koy waxee ay toog muy dox jeune ne dis même pas que du yabaate mais c'est une insulte chez les Sénégalais quand tu vois des Sénégalais yoo xamante ne ñu ngi góorgóorlu sàccuñu fenuñu doxuñu ci loo xamante ne du yoon mm. ñu ngi am envie jàppale seen ay waajur parce que mënuñu fay appartement trois cent mille francs nga taxaw naan par exemple taxaw goo sa kër papa mais on se fout de qui alors que dans la culture sénégalaise des gens dañuy dëkk seen créé papa hmm. tiens jusqu'à un certain moment parce que la vie est difficile voilà te boo amee jom hmm. doo wayaan doo ñaan hmm. mais tu ne peux que compter sur ton travail te nit ki da ngay doyloo li nga am et donc léegi aujourd'hui man ce que je me dis personnellement mooy que ne euh, Sénégal tey toll nañ foo xamante ne comme ni ñu ko waxee sànq des changements de paradigme c'est à tous les niveaux c'est-à-dire que hmm. am na comme li ñu wax naan par exemple sëriñ yi ñaan ay sukuru koor après on a discuté c'est bon mais c'est que gis nga euh, man ce que je dis on a la chance d'être dans un pays boo xam ne y a des croyants des musulmans des chrétiens yoo xamante ne ils sont en symbiose Sénégal lépp dafa mos a jaar yoon mais su suñu diine li mu ñu gën a jox mooy la dignité humaine parce que alxuraan même yàlla si boppam ah yonent bi sa sa bopp yàlla dañ dafa def ko ne booy jaamu na nga jaamu une partie de la nuit ou le tiers ndax da nga war a xëy liggéey ji d'accord hmm. mais kooku ñu ko wax gën mi def la donc ñun naka la ñu mënee toog ne par exemple dañuy xaar euh, comment dirais-je mon frère euh, euh, Ousmane bu liggéey ñëw jël jox ma non et puis dafa am loo xamante ne aussi lépp loo bëgg xam nga sànq am na ñu wax sànq ne sur le plan spirituel et sur le plan social wax na ko sànq nee na les les marabouts am na foo xamante ne population bi dañuy moom seen bopp sur l'aspect du développement économique. ci choix yi la société. loolu dañ koo bàyyil seen bopp. non gis nga loolu par exemple mbir yàlla ak seen wàllu ruu. maanaam dañu def la part des choses. mais dafa leer ci alxuraan. wa man yuridu sawaba dunya nuutihi minha loo bëgg ci àddina soo ci farloo ma taxawul ci man yàlla wa man yuridu sawaba al axira nuutihi minha loo bëgg ci la spiritualité et dans l'au-delà ma may la ko il suffit dugg ci. il faut que ñu am gis nga cette politique là dafa war a mën a nekk gis nga tey man je me dis tey sénégalais yi nga xamante ni ñëpp dans la diaspora et tout il faut que à un moment donné que chaque sénégalais mette sa poche dans une caisse Sénégal xam nga et aujourd'hui man de ce que projet yi nga xamante ne ñoom am nañ ko. mais bien sûr war a am benn national moo war a am Sénégal. Ah. chaque Sénégalais dugal dara parce que on a confiance à ce gouvernement. on a confiance parce que gars dañu xeex lii. Sénégal yi ñu war a ne effectivement on doit pas attendre seulement des fonds venant de l'étranger on sera éternellement ñoo xamante ne dañuy dimbali on va être endetté on a quatorze mille milliards de dettes mais noonu lañ koy defee yow yow par rapport ak. oui oui oui peut ci levée de fonds bi nga wax. oui mais au-delà dañu levée de fonds ba am ko. Mhm. comment on peut faire. pour que oui d'accord aujourd'hui on a mis un gouvernement koy un gouvernement il y des centres de statistiques qui permettent yi. ak yenn manques yi. mais à partir de là mais c'est organisé par l'État et les secteurs yi nga xamante ne on a on fait des appels de fonds pour développer il y a combien de jeunes qui sont des mm. master qui sont des masterisés mm. am nañ seen master ñu ngi def ay kii les enfants qui font le le taxi yango bac plus 5 mais pourquoi pas créer une société boo xamante ne les yango on va plus les viabiliser les sécuriser et leur donner un salaire plus décent parce que sàcc jiwuñu. lu fi mën a trafiqué wuñu. lu a jëlee fii c'est étranger c'est étranger en plus. alors que on peut prendre des voilà et puis je me dis par exemple comme Diomaye li mu wax ñi nga xamante ne par exemple yor nañu alalu réew mi. bu ñu wonee seen bopp. Hmm. d'accord ñu am luñ leen encourager d'accord. les gens qui ont des milliards ici au Sénégal hmm. qui aiment le Sénégal mmh. il doit avoir un consortium ku ci nekk indi looy mën pour ñu mun a créer ah. emploi le pays peut se développer à partir des Sénégalais il faut qu'on le croie hmm. c'est tout léegi nan lay def ba tamit Sénégalais yooyu ngay wax hmm. ay milliards peut-être daawoon nañ manque de confiance xëy na hmm. dañ leen ko xajoon tey dem nañ ba jàpp am nañ ay leaders yoo xam nee nañ jub nañu pare nañ pour jubal pare nañ pour jubbanti mooy confiance baa ngi exactement nu ñuy def ba ñu am lisibilité ci Sénégalais yooyu de oui lisibilité mën na yem rek ci y sociologique les gens les jeunes pensent autrement ils sont plus dans l'émotion booy léegi dañ nekk ci pragmatisme xam nga doo fi nekk naan leen ay defal lii yàlla baax na da leen defal lii ah. lii nga am nga faj sa ay nga nga faj sa soxla mais et c'est ça la vie c'est ça en fait ah, ah. gis nga par exemple hmm. pour que le contribuable sénégalais hmm. mën a am une parole bien entendue par rapport au gouvernement en place hmm. il faut que qu'il mette son argent dans la caisse dinañ nga il y a il y a des représentants des euh, euh, comment ça s'appelle des partenaires sociaux. Mm. il y a des associations il y a d'autres secteurs yoo xam ne on peut créer énormément de choses. Mm. pour accompagner les jeunes dans la réalisation ci yenn projet yi. et c'est ça c'est-à-dire que euh, comme ni ko Kilifeu waxee. tout à l'heure moi je suis entièrement d'accord. les points sur lesquels il y en a qui font qui ont fait des erreurs arrêtons cela regardons la construction la reconstruction du Sénégal. Mm. on a fait ce qu'on appelle une déconstruction d'un système. maintenant il faut construire un système bi nga xamante ne bi ñu ciy gis seen bopp et c'est ça l'important mm. parce que je me dis par exemple moi je moi jamais l'économie participative là parce que gis nga tey yow boo génnee man ma génn wala keneen génn dina am ko may 2000 francs tey may ko fële may ko fële mais pourquoi ne pas effectivement sensibiliser les sénégalais comme quoi que ne am na ñoo xamante amuñu mënuñu joxe sax joxe Euh, en matière de financement, PASTEF a, a fait des, des, des, innovations. Oui. C'est-à-dire ils ont fait appel à contribution de, de leurs militants. Mhm. Euh, brasser la yi ñuy jënd cotisation yi ñuy def mhm. donc euh, tey dañu changé woon sax. ça ah, c'est un état. oui mais waaw euh, euh, oui mais mais c'est-à-dire Djibril il faut ma dem ci. il faut ma dem sur le fond de ma pensée. Mm-hmm. parce que balaa ngay sa sama xam lu génn ñoom di wëlis. xam nga bi may nekk xale. xam nga mm-hmm. damay dégg ñu naan Sénégal kër 90 dañoo cotiser dégg laa ci am nag ah. on léegi li ma la bëggoon wax tey. man mais dama ne la ñi nga xamante ni pour ñu falu. Mm-hmm. bu njëkk ba benn nit mooy am parti nekk milliardaire di ko ci def. mais ay nit. am seen gëm-gëm. Mhm. kii yëkkati ñaar fukkam kii yëkkati ñaar téeméeram kii yëkkati dërëmam def ko. Mhm. pour gëm li nga xamante ni mooy li ñuy wax projet bi. Mhm. comme li nga woote ni euh, tey ñu toog Sénégal ñi nga xamante ni yàlla may na leen ñu mën a yëkkati parce que sénégalais am na ay valeurs de solidarité. tey d'autant plus que ki fi nekk ñi fi nekk. nit ñi am nañ ci ñoom njort bu rafet. nag nan la ñu koy organiser. parce que tey on parle de crowdfunding. de financement participatif sur des projets. am na ay sites yoo xam ne dañu koy teg ndaw ñëw am projet euh, keneen ñëw jàppale ko invest mais beneen bi li ngay wax noonu. Euh, ñun dañuy supporter les entrepreneurs sénégalais. man damaa yàpp sama mbokk tukkuloo rek saraxul lay dañuy ñëw tabax étage teg seen pilier à toog. bu ñu jógee ñun ñoo naan Auchan dégage mais ñun suñu opérateur économique yi nan la ñu mën a organiser woo ba ba ñu mën a participer ci ouais. développement ba sur la création d'emplois et de richesses exactement parce que gis nga aujourd'hui par exemple il y a combien de propriétaires de bâtiments au mel lu war a asamaan d'accord mais ñooñu au niveau impôt foncier est-ce qu'ils paient régulièrement parce que souvent on le sait il y a des gens qui ont des bâtiments qui le louent à des prix exorbitants te comme li ñuy wax impôt ñu bëri ñu dafa xaram parce que dafa ñu mais père ma jox la benn deal. comme nekkoon Sénégal. am gaa mhm. gars ñuy def. Mhm. booy ta pansement buy tabax bâtiment mhm. day ñëw mu ne c'est pour à euh, usage d'habitation lay wax. exactement ubbi na ci garage ak yëpp. ba ñu fay li mu war a fay. mais buy tabax. mu def ko ay cantine. def ko ay magasin. mu léegi ay usage commercial la. donc déjà loolu mu def rek. c'est une fraude fiscale. bien c'est un manque à gagner. ki nga xam daa jël këram di loué këram di fayeeku location. moom it voilà saytu loolu yëpp problème la foofu la doon jël voilà c'est que loolu il faudrait que par exemple li nga xamante ne mooy lépp luy projet bi nga xamante ne man si écouté Diomaye hmm. vraiment dans son discours dans la lettre dans tout ce qui est le projet parce que j'ai entendu et je me dis que ne daf doon loo xamante ne ça parle de transparence d'amour du travail et de justice sociale et de justice hmm. de façon transversale moi c'est ce que j'ai vu c'est ce que j'ai compris j'ai hmm. jamais été passif mais quand j'ai vu c'est ce que j'ai compris et j'y adhère à 200 pour cent donc je me dis par exemple aujourd'hui les gens qui se font de l'argent aujourd'hui ils ont été braves tabax seen kër à usage d'habitation mais malheureusement leneen lañ ci def. mais il faut que li ñuy jot ci Sénégalais ñu ci Sénégal. c'est la moindre des choses. Ah. et loolu gis nga on les appelle le gouvernement à mettre des agents qui vont effectivement vérifier cela pour que chaque Sénégalais xam ne dëkk bi da fi nekk loo fi def nga am ko ci askan bi c'est un état stable qui te l'a permis. et ça ça demande une compensation.

continuer à sensibiliser pour que chaque Sénégalais de façon spontanée accepte de payer un petit impôt c'est important parce que loolu mooy li nga xamante ne mooy doxal dëkk tey boo buggee par exemple tey gis nga tey su ñu demoon ci euh, euh, par exemple une partie de de cette économie participative il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens et bu nañ koy recenser tey avec le système numérique les ouais. téléphones on peut recenser tous les Sénégalais on peut recenser ki nga xamante ne amul mais feebaree mais nañ ko et c'est par c'est par la solidarité c'est par le fait d'avoir un sens du collectivisme. que chacun voilà et là c'est un changement de paradigme voilà c'est c'est le changement des paradigmes sociologiques économiques et social nga xamante ne on est un autre Sénégal. et c'est ça qu'il faut. qu'il faut euh, exactement euh, yéen yéen yéen waa euh, Y'en a marre yàggoon ngeen ci jouer ci sensibilisation éveil yéen leen nga naan nouveau type de Sénégalais. waxoon ngeen ko en bi muy ñëw. bi la yoon changement de paradigme changement systémique ci li am ngeen jàpp ni euh, changement yooyu comportement yi da ko war a accompagner sénégalais yi dañ ci am pàcc bu am solo. Mhm. fi mu ne yow du ma ne sax buñ la dénkoon nangam loo ciy def waaye luy doon sa apport ci gouvernement bu yees bi xam naa ñu ci ëpp moom am ngeen ay sympathie ah euh, am na lu dox seen diggante rawatina Ousmane Sonko. mais mais mais mais fii ñu toog nii kan moo fi xam le nombre de ASP. ASP yi ils sont combien. ah loolu leneen la. les ASP. agence de proximité. Okay. sécurité de proximité sécurité de proximité ASP. ils ont énormément je sais pas s'ils sont au nombre de soixante dix mille ou sept cent mille j'ai pas bien. comme ko. voilà mais sinon c'était juste pour rappeler que à ce nouveau gouvernement que. mu ñu xool fan la yéexee parce que ça fait deux mois bon dañ koy dugal fële quoi ça fait deux mois ils n'ont pas encore reçu leur salaire et c'est des Sénégalais qui ont été formés et recrutés pour ñu nekk ci euh, proximité euh, voilà quoi ga sécurité proximité donc nañ leen taxawu te aussi bu ñu gënee mën a améliorer seen situation ak gën a xool seen augmentation de salaire parce que grand bi tout à l'heure vous avez parlé de dignité humaine tout dignité humaine aussi li nit li nit bi di gagner aussi daf ci am solo parce que tey par exemple boo demee dans les pays comme la France éboueur bi il a les mêmes avantages que ki nga xamante ni c'est un DG de nangam sangam les avantages mooy il a un salaire boo xamante ni ça va lui permettre de pouvoir faire des prêts de de voiture prêts de maison prêts de tout loolu aussi tamit nañ ko xoolaat. gardien yi mais yow li nga war a xool foofu intérim yi société intérim yi. Euh, laal nga benn ñu ngi bëgg a rey Sénégalais yi. et par expérience man ñeme naa ko wax ah. ñii nii bi may nekk di taqale pompis seen intérim ñu ngi fii su ma leen romb dama leen ciipatu parce que grand dañoo dóor a dóor a dóor mais fan yi li ñuy doon wax ci affaire euh, hypermarché indien exclusive les conditions de travail là c'est pas les indiens ah c'est des sénégalais ñoom mm-hmm. ñooy dem recruter ay sénégalais di leen mal exploité léegi rek grand gardien secteur waa waaw mais xoola un vigile muy garde banque un vigile muy garde banque mm. bu ñu ko reyee moom moo perte bu fa dara xewee moom la ñuy jàpp mm. ay soixante-dix mille lañ leen di ay cinquante mille yow nga tëdd non non mais condition li mu wax noonu se restaurer la dignité humaine sénégalais bi bëgg na liggéey ci yan condition lay liggéey chinois yi nan la ñuy exploiter sénégalais yi des salaires décents mais exploitation boobu loolu tey tey tey loolu li mu wax ni dafa am solo et puis loolu war nañ ci def un débat spécial def mm, ci reportage pour donner loolu duñ ko tos nii rek parce que secteur yëpp yow sànq nee naa la am na ñu la doon woo depuis Kédougou depuis Kédougou ñu ngi may remonté ñoo xam ne dañuy yëngatu ci wàllu restauration. dinañ dinañ ñëw. dinañ entreprise yooyu xam nañ xam nañ ñi nga xam ne ñu ngi fa. di liggéey ci conditions yi misérable loolu on va y revenir. ce débat là on l'aura na même les travailleurs de l'électricité ils sont au nombre. ils étaient au nombre de 500 waa ATE. Hmm. ils étaient au nombre de cinq 500 ñenn ñi def nañ 10 ans ñi ci gën a tuuti les 10 ans 15 ans 20 ans. ba léegi embauché wuñ leen. donc yooyu yëpp c' est des yoo xamante ni bon yàgg naa ci nekk ko bien sûr mais ba léegi seen seen rek leegul gul quoi dinañ ci ñëw. maintenant Pa Ousmane ñun man dama jàpp ni euh, euh, on a participer sur trois alternances. Hmm. la première alternance en 2000 participé nañ ci bu baax a baax a baax participé nañ ci bu baax la deuxième alternance en 2012. participer waxuma participer nañ ci mais joué nañ ci un rôle décisif même cette troisième alternance aussi kazalika ouais. Euh, mais booy xool à chaque fois qu'on met qu'on qu'on combatte un régime et qu'on qu'on qu'on aide à un autre régime de se mettre sur euh, place après dañuy toogaat di leen seetaan naan wëy yéen a ñu jaayoon un projet donc yéen wala yéen ñu jaayoon un programme léegi dañuy nekk di leen surveiller ndax est-ce que le programme pour lequel vous avez été élu yéen a ngi koy doxal. Hmm. déedéet cette fois-ci ce que j'ai compris moi Kilifeu ak ñi nga xamante ni ñëpp je partage avec eux le même point de vue mooy que ni cette fois-ci on va pas du ñu du ñu bàyyi ñii ñoom kese. Hmm. pour que ñu réaliser li nga xamante ni loolu lañ dig nos jeunes frères. Mm-hmm. parce que man sérieusement dépassé naa wala tollu ma fu may laajee état ne ko jox ma liggéey. Mm. sérieusement le par exemple dans l'économie l'économie participative il y a des internautes qui disent qu'ils peuvent donner 2000 francs par mois et c'est ça qu'il faut développer mm. à l'échelle nationale mmh. tu prends 2000 francs par mois fois 18 millions de Sénégalais tu des milliards à l'année, c'est presque 1000 c'est presque 1000 milliards et c'est là où par exemple la contribution de chaque Sénégalais permet au Sénégal am na benn non au non oui. au financement de la France je suis entièrement d'accord. Oui. Pourquoi on est financé par d'autres alors qu'on a les moyens. financement endogène endogène c'est tout. endogène c'est endogène. xam nga mhm. xam ah, naa fi ngeen ñëw aywaay. Sénégal le va non écoutez c'est-à-dire que on ne peut se financer d'une manière endogène. endogène il faut les mais dina am il faut effectivement mobiliser les potentiels fiscaux mais il faut aller vers l'endettement ça c'est important l'essentiel c'est de l'investir dans des investissements productif. non je suis d'accord Bey. Bey pourtant yéen a bokk li ngeen wax mais. je suis d'accord mais mais cette fois nag Bey ñu renverser la tendance. Ah non c'est que Bey y a combien de fiscalité non Bey Bey euh, xam nga. économiste euh, non on peut on peut y a combien de fiscalité au Sénégal. en a trois direct indirect. Euh, le troisième j'ai oublié. xam nga tey par exemple tey. bu ñu nee par exemple on va se financer encore à l'extérieur du Sénégal on est encore endetté plus léegi li ñuy donne liberté mais que chaque Sénégalais fasse cela mais ça peut être quelque chose boo xamante ne. mais mais grand ne ko emprunt obligataire am na. voilà obligataire je peux continuer emprunt obligataire. soxla. ne képp kuy Sénégalais am nga kaay nga dugg. bien sûr na l'emprunt oui mais lépp de c'est des sources oui mais mais l'emprunt mhm. c'est que ce soit obligataire que ce soit vers le partenaire c'est un emprunt non gis nga ce qui est important mooy que emprunt bi mhm. am soutenabilité nga mën ko fay mu am soutenabilité mooy les les les les intérêts yi ngay fay ak yooyu mhm. ak délai de paie mais loolu moo am solo la la la tous les états du monde l'économie se fonde sur trois instruments l'emprunt le financement par la fiscalité mooy li ñuy wax budgétaire. mais c'est pour ça je parle de fiscalisation la création monétaire. oui maintenant la création monétaire. ça crée de l'inflation mais li ngay wax nangul na la ko nangul nañ la ko mais li mu doon wax moom. non dama dégg moom non fi mu doon wax. endogène si on va s'expliquer sur l'endogène. Ah, c'est-à-dire le le côté endogène c'est quoi. c'est-à-dire qu'on est des Sénégalais. Hmm. nous allons nous financer de façon partielle par rapport à des besoins spécifiques pour permettre à une relance des jeunes vers un emploi. Hmm. ça on peut le faire. par exemple par exemple ci Covid bi. Mhm. dañu lever milliards. milliards. milliards levé woo ko. par le Sénégal. non waxuma <laughs> par le Sénégal. ok non non pas 1000 milliards. dama ne la contribution état dafa soxla na ko financier joxe na. mais le secteur privé joxe na. le Sénégalais lambda. joxe na non non ah, eh. li ñu joxe ñaar la. béy béy li ñu joxe ñaar la. dama leen di wax lu mën a nekk. non Bey je suis d'accord. Ah, dama la ne mécanique au sein de l'UEMOA au sein de la CEDEAO dama wax ne un état le Sénégal aujourd'hui mhm. nous avons des taux Euh, par rapport ak notre mobilisation de ressources. Mm -hmm. fiscales. qui est très mais, faible mais Macky li mu fi bàyyi ci bor bëri na nag. qui est très faible. bien sûr attends qui est très faible. je sais je sais li mu fi bàyyi ci bor. waaw li mu fi bàyyi ci bor moom la attendez attendez da ngay dem nga xool fan lañ ko def. non li mu fi bàyyi ci bor. waaw mais li mu fi bàyyi ci bor xam nga lan lan mooy solo bi. ba par exemple liñ dugal ci terre bi. xaalis boobu est-ce que est-ce que am économique par exemple am plus y a un social mais est-ce a économique. parce que moi je me dis que si bu si on regarde. on s'écoute pas aussi. oui boo waxee. Mhm. man dama ñëw ma ne la. Mhm. xam nga li nga wax. Mhm. kenn dindiwu ko man dama la ne. on a des marges de manœuvre pour mobiliser plus de réserves fiscales. mais quel que soit epsilon. Mm-hmm. on ne peut pas faire l'économie d'un endettement. Mm. il faut pas poser le débat en ces termes. il faut que l'endettement soit soutenable il faut que bu may leb kilifa ma man ko fay ma bañ ko jël ci. taux d'intérêt mais innovation mais mais ko war a dugal. c'est ça la question. on est d'accord non non je suis d'accord xam nga da nga wax fiscalité xam nga da nga wax par exemple innovation bokk na ci tamit voilà et puis financement endogène léegi on parle de fiscalisation d'autant plus que d'autant plus que ñi fi nekk xam nga lan mooy financement endogène ñi fi nekk jamono ji. dafa defal cours bi ñi fi nekk jamono ji am na lu ñu wane. Mhm. am na lu ñu wane ni nit ñi am nañu benn yaakaar ci ñoom. ba suñ leen laajee ñu jox leen que ni tey waaw ah, non seulement bu ñu laajee ñu jox leen. mais wóolu na bu leen joxee dans trois ans. la ñuy def njëriñal réew mi da ciy ëpp. yooyu bu ko boolee mais kon nañu essayer li pour xoolal la joxe moi ce que je dis moi ce que je dis xam nga on parle de fiscalisation un pays vit beaucoup sur sa euh, sur sa fiscalité. on n'a pas suffisamment de fisca de fiscaliser aujourd'hui le, le Sénégal le taux est très faible mais pour fortifier afin que ça pousse mais la sensibilisation mais, mais, nationale mais, pour que chaque Sénégalais pour vous rassurer mhm. euh, ku doon daw inspecteur impôt et domaine mhm. mu nekk président oui vraiment nag euh, le problème de la fiscalité la non yow attends ñii seen liggéey